mbokk yi safoo almuxtaar tv tey jii ci dibeer yamook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier 2023 daayira yi fasantikoo amoon nañ ndaje bu mag tey fële ca Pikine pour waxtaane tertu bi nga xam ne moom la ñuy tertu Cheikh na Cheikh Sadbou Takhiyoulah di xalif général des xadre ndaje bi nag daayira yi ñoo fa daje di daayira bi nga xam ne moo féetewoo fële ca Géejawaay ak daayira bi nga xam ne moo féetewoo fële ca Caaroy ak daayira bi nga xam ne moo féetewoo fële ca poste Caaroy ak daayira bi nga xam ne moo féetewoo fële ca Pikine Ucodaf ndaje bi nag li ko waral di teertu bi ñuy teertu xalif général des Khadres samam rasool gën gi mindee kii di Daouda Gassama bi nga xam ne moo jiite daayira bi nga xam ne mooy umul vadili bi nekk fii ci Pikine Icotaf mi ngi xam ne lan moo waral seen ndaje bi fii tey ci pikin man la Cheikh Daouda Gassama ànd seek di président waa daayira dëgg-dëgg taalibe ñu naan ko daayira umul vadili ndaje bi lu ko waral mooy xalifa rasulullahi sallallahu alayhi wa muy xalifa Cheikhna Cheikh Saad Bou wul Cheikh Mamadou Fadil Cheikh Saad wul Cheikh Taqila wul Cheikh Saad moo waral sunu daje bi. ba tey dañuy des ak Daouda Gassama lii di wàllum sécurité mu ngi xamal ni kii di sëriñ bi jël na ci matuwaay ya ca war. waaw côté boobu loolu rôle sëñ bi la parce que sëñ bi côté boobu am na fa taalibe bu ne te fu mu toog loolu lijjant lépp lépp féete na côté si moom côté boobu moom mat na sëkk macha allah. ba tey dañuy des ak Cheikh Keita Diallo jiite daayira bi nga xam ne mooy daayira Cheikh Abdou Mboub bu Cheikh Makhtar jóob fële ca caaro yi mi ngi xam xamle daayira yi fi daje pour waxtaane bés bi man la Cheikh Kayta Diallo taalibe Chérif Cheikh Aydara bu Cheikh Mohamed Fadal bu Cheikh Mahfou bu Cheikh Cheikh Saad waa sunu ndaje bi euh, dafa nekk ne dañuy teeru sunu xalif général ñu ànd ci ak euh, daayira al mutaxabbiina fillaahi daayira Cheikh Abdou Mboub bu Cheikh Makhtar Diop ànd Cheikh daayira Cheikh Dey Calaw bu post Caaroy ak bu Géejawaay ñoo ànd di teeru tey su teeru suñu xalifa suñu xalif général Cheikh na Cheikh Saad bu tax yu la fii ci Pikine Ikotaaf bayaalu sëñ Mansour lii di wàllum kaaraange kii di sapeur pompier ak service d'hygiène mi ngi ciy xaar seen taxawaay waaw matuwaay yi ñuy jël moom lépp daal aju na si sécurité bi aju na ci euh, service d'hygiène sapeur pompier ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di woo ci bés bi ñu ñëw jàpp ci bés bi. kii di Cheikh Keita Diallo mi ngi xamal taalibe yi ñu wàññi tëgg ko fecc bi te ñëw ci turu yàlla yi fi Cheikh na bàyyi muy zikrullah. waaw folklore moom bokkul ci tarixa xaadiriya folklore moom bokku ci. waaw ñun ñu ngi wootee euh, lépp li nga xamante nii moom la fi Cheikh na bàyyi maanaam ñuy toog di tudd yàlla. cheikh ne loolu la fi bàyyi ñuy tudd yàlla ñi nga xam ne nii nag ñooy taggkatu yonent bi bu ñu ñëwee ñu tagg yonent bi ñu teg ko ci yoon te xam naa ni ñoom jàngkat yi nekk fii miis nañ ko te mën nañ ko soobee yàlla lépp loo xam ne nii war na rek ñoom di dinañ ko def ci ñu mu gën a rafetee. bés bi nag mi ngi ci wow mbokk taalibe xaadir yi nga xam ne ñoo féetewoo fii ci Dakar. waa taalibe yi noonu maa ngi leen di woo mobilisation ñoom ñëpp ñu ñëw teeru Euh, sunu xalif général di ci woo nag mbokk jullit yëpp di ci woo euh, présidente Louta Dieng bi nga xam ne ni mooy présidente daayira bi di ci woo ñëpp ñoom Serigne Soare di ci woo ñoom Pape Niang ñun daal ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn incha allah ñu ñëw ñëpp ñu ànd teeru euh, sunu xalif général bés bi le 27 le 27 janvier la fii ci Pikine bayaalu sëñ Mansour si bu bu tàkkusaan bi jotee rek mais ñëpp génn ñëw teeru sunu xalifa bi incha allah. mbokk yi safoo Al Moukhtar TV tey li leen leen indiloon fii nga xam ne mooy Pikine daje bi nga xam ne moo fi am pour waajal teertu bi nga xam ne moom la ñuy teertu Cheikhna Cheikh Saad bu Taqiyullah di ajuma bi ñu dégmal di fanweeri fan ak juróom-ñaar fii ci pikin tali bu mag ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon fii nga xam ne mooy seen chaîne bi ngeen sopp di Al Moukhtar TV. doomu Cheikh Muxtaar gànnaar am nañu maami yaaram Cheikh Saad bu Taqiyu laa woote na ji leen wuy si leen sëtu Seydina Muhammad nabi mooy maamam Cheikh Saad booy maamam Cheikh Mamer va dalay maamam uyaalime uyaalime uyaalime albaytil muxtaar ñoo bari ngor duñu daw dani jeex maami Cheikh Al Adraame ay dara Cheikh Al Adraame gaynde daaru salaam laay laay la laa yéen julitoo xadiroo Seex Sidi bi ay baayam soxna Minatu mooy yaayam Minatu seexi duumu duumu abdaati misbaa uddin bandi seexi naa Seex Mamadu Faadal